salaamaaleykum ginaaw ba ma leen nuyoo bu baax a baax internet national international leen bëggee bu baax a baax comme ma leen ko waxee woon combat bi avant la woon pendant ak après lu looy bañ mu ñëw nag bu ko jàppal bis dafa ñëw la 19 passé kat daan nag di Tapha Tine le géant du Baol ñu nuyu ko bàyyi ko mu nuyu internet ñu koo ci waxtaan bi géant bi maa ngi leen nuyu. waaw salaamaaleykum auzu billaahi mina seytaani rajiim maa ngi nuyu Sénégal yëpp. waaw ku ci ne sa tur ak sa sant ñi ci biir ak ñi ci biti waaw di sant yàlla bu baax nag di sant uh, sumay waajur di nuyu waa Bawol di leen ziar di nuyu sama dëkk boobu di Réfane ak li ko wér yëpp waaw di nuyu Sénégal yëpp ñi ci biir ak ñi ci biti maa ngi nuyu ñëpp di nuyu Mondu Lam aussi ak kuy képp kuy bëgg lam di leen nuyu aussi Ndeye Mbacke di nuyu xam nga groupe Leewtoo mm-hmm. bon di nuyu sama fans club yëpp. fu ñu mën a nekk ak képp kuy bëggee Tapha maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay ama di nuyu képp kuy suivre làmb daal di wax ne kontaan naa ci ñëpp sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp pour man dëmb bi muy bëri ñëppam faralut loolu laa jàpp te nit noonu la war a comporter woo quoi wax dëgg yàlla pour man ñëpp man lañu fara doon Sénégal yëpp kon loolu sant yàlla la xaw kon maa ngi gërëm ñëpp ku ma ñaana rek moo xam ku ma toogal la wala ku ma toogalul maa ngi lay gërëm di la sant ak képp ku ma ñaana rek xam nga waaw bu loolu weesoo nag di sant xam nga su ma waa écrit muy écrit Bawol mbooloo ak staff bi di nuyu président falu Faye nga xam ne moo nekk ci bopp bi di sant aussi coach si mbay Ndewaan la Ibra Diagne ak Ibra ak euh, ab Ablaye Gueye ñoom ñoo nekk fii di liggéey ensemble di sant aussi booy lutteurs yi nga xam ne toujours maa ngi liggéey ak ñoom ensemble ñu ne ci écrit bi ak yeneen mbër yi nga xam ne bawol lañ dekk nekk ci yeneen écrit maa ngi leen di nuyoon ñëpp di xam ne xam nga su may rak lañ te kontaan naa ci ñoom daal gis naa taxawaay bi ñu ma taxaw wax dëgg yàlla comme li may wax rek ñoom ñëpp a ci jàpp tey bu ma limbee tour rek xam nga mën naa compliquer quoi wala temps bi dul ñu ko may. Mm-hmm. kon bu tax na maay gërëm ñëpp. di sant aussi waa Médina bi xama nga Rebeuss Goltapé Fass Colobane ak ñaacu guerre bi yëpp. Mm-hmm. bu Grand Dakar mm-hmm. zone bi quoi mooy zone ñu nekk ci zone Médina bi affaire yooyu. di sant aussi waa Ouest Foire Rufisque xam nga waa kër Ndiaye bi ñoon ak waa kër Ñaxirat zone bi ma jógee xam <laughs> Mansour Fall waaw mais xam ma mënul ñàkk nga tafaatin daf daf may njëkkandu waa ndimmi tëjee ko bàyyi ñu waxtaan tuuti non non mais mën mënul mënul ñàkk am na moom da koy ubbee quoi mu xaw la xaw ko si quoi sinon xam nga ok ñëwal day compliqué quoi mm. yee lii nii la demee voilà di sant aussi suma suma président fan si club yi muy Elimane xam nga jël loxoom bi teg ko ci mu nuyul ma fan si club yëpp loolu moom xam nga boo fi nee di pliqué rek day day xaw a doy waar mm. aussi di sant aussi sama coach boxeur yi nga xam ne xam ñu ngi liggéey ak man temps bu yàgg. waaw muy xam nga mën naa ci cité benn muy Baye Sall Baye Sall Ngom ak euh, Serigne mbay Guèye. nga xam ne xam nga saa bu ma ko tuddee rek dama naan képp kuy def armation mukaraat xam nga maa ngi lay maa ngi lay maa ngi lay maa ngi lay gërëm quoi. di wax ne xam nga suñu aar la ñun ñoo ko moom mukaraat. ma ciy sant aussi coach si mbay Guèye Serigne Mbaye Guèye aussi ah. waaw di sant coach si yëpp ah. kon mu ngi noonu loolu mooy nuyoo bi après xëj na dinañ ñëwaat ci yeneen li am temps fàtte rek. nuyoo bi de bu ko tëjee Mansour jàpp rek yóbbu ma fee dikk. Euh, ginnaaw loolu nag ñu waajal combat bi. ñu gis open press ba Tapha Tine indi forme explosif mm-hmm. waa Bawol ñëpp topp ci ginnaawam. Mm-hmm. stade bi fees dell mel jour bu combat bi lay bari lan la lan ne nekkoon préparation waa mais lépp sant yàlla rek xam nga boo wootee moom nit ñi wóoyu si la moom doo def lu dul sant yàlla quoi. Mm-hmm. xam nga et puis ak organisation bu jaar yoon xam nga. Mm-hmm. ñëw nañu def li ñuy def déborde de xam nga. Mm-hmm. déranger wuñu kenn ñëw nañu def def mm-hmm. open press bu jaar yoon. mbokk yi ñëw nañu woyu si ñu waa Bawol ñëw nañu Medina ñëw nañ xam nga. maanaam Sénégal ñëw nañu woyu si ma comme ni ma koy waxee rek. Siin Saalum Kajoor Bawol. ak suñu mbokki lebu yëpp ñëw jàpp ci bés bi ak suñu mbokki séeréer yi bés bi ñëw taaru. xam nga loolu sant yàlla la quoi. ñu ngi ci li nga xam ne ñu su dafa naa ñu parce que 17 heures lañ bi ñëwee mu nekk ak diir ci biti teewul dugg lan moo xewoon ba mu Tapha dugg si wul ci stade bi waaw ku ne xam na ne boo àndee ak mbooloo du du du du yom quoi parce que sécurité baa ngi fii xam nga du ngay ñëw ñëw rek dugg keroog question de négociation la après xam nga ñu may la liñ lay may xam nga nga dugg dem si yoon quoi loolu la mais loolu moo waraloon temps bi mais du dara ak préparation lam rek xam nga bul di sant aussi waa CNC taxawaay bi ak sécurité bi muy sapeur pompier police. militaire yi ñoom ñëpp ñu ngi doon jàpp ci liggéey bi xam di sant aussi ñu nekk ci endroit Pikine bi yëpp di nuyu waa Pikine aussi. Paku Lambaay suma fan fa nekk Paku Lambaay yi fukki pak yeeg ñaar yi ne ci biir Dakar yëpp. xam nga maa ngi leen di gërëm ñoom ñëpp a woyu si comme la ma doon wax rek. dama leen ne dox leen ñëw bu leen jël kaar bu leen jël sept place te yaakaar naa noonu lañ ko doxalee. ñëw teel a fees stade bi du ma ne mbër ëpp na fa supporter waaye ñi gis mbooloo bu takku. topp ci ginnaaw Tapha Tine yow ba nga gëstoo gis supporter lan nga yëg. waaw lépp sant yàlla rek xam nga benn affaire moom boo ci nekk xam nga muy gën a avancé moom dangay ngay gën a sant yàlla. waaw loolu moom xam nga supporters yi nag kenn amut seen fay. parce que kenn jiwu leen dara bu leen neexoon ñu toog seen ker wala boog ñu dem farali keneen. kon ginnaaw yàlla def na am na ñu ma ci farat rek man donte kenn nit la sax. Mhm. wallahi al azim bu tax na xam nga képp ku fa teew rek ci stade bi. muy sama supporter wala supporteru Boy Niang xam nga maay sant di gërëm parce que loolu lañ doon ñaan maak Boy Niang ñu bëre ci jàmm xam nga ni ñi bi ci jàmm ak salaam te yaakaar naa loolu am na. kon loolu sant yàlla la quoi ma ciy sant su may supporter di ci sant supporteru Boy Niang ak képp ku bëgg làmb jàgg ma la ciy sant quoi. Mhm. gis na làmb ji ku ne gis na làmb ji nu demee. Boy Niang de dafa jël li nga xam mooy cinq avertissement te mhm. règlement bi ku am cinq avertissement mhm. dañuy jox sa morom victoire mhm. ñi dégg ne booy Niang loxo bi dafa damm yow bi nga koy déggee ba relation la ci am waaw di sant aussi ñoom cuun papa cuun hélas xam nga combat bi dañ ci liggéey temps boo xam ne xam nga ñoom même bu may dem entraînement dañ may dañ may dañ may accompagner moo xam ne damay matinalu géej wala may dem defi boxe wala musculation kenn day ñëw assisté ma xam nga yow xam nga ci dara ñëw nga jël si sumay interview. bu mhm. lee ñu ngi toog. Mhm. xam nga ñu nekk di ma digital ci lam ji lu jaar may sant famille cuun yëpp ah. Mhm. xam waaw lam ji nag ni mu demee dem noonu la mënoon demee sport la xam nga fa ñu koy gëstu mën na faa ñàkk nekk moo xam football la wala boxe be wala leneen ak leneen. waaw comme ni ñu koy waxee rek moo tax euh, lam boo ci wax rek. waxal loo xam quoi wala di nga juum wala ñu jéppi la wala ñu teg la feneen fu mu warul nekk parce que dafa nekk métier boo xam ne dafa xaw a doy waar. Mhm. boo ko xamul rek bu ci wax. Mhm. loolu la quoi mais xam nga noonu la mënoon demee booy ñaan ak xam nga loolu moom maa ngi koy dégg maa ngi koy seetaan image yi comme ñëpp. Mhm. mais bu dee lu ko dal moom maa ngi koy mosawu. xam nga di ko ñaanal yàlla na wér ak jàmm ak salaam. bu ñëwaat ci terrain bi. yàlla xam nga yàlla suturaal ko daal. parce que xam nga jaamit noonu la quoi du ñàkk boo nee ci àdduna ay ndog-ndog yu sew di la dal. du mën a ñàkk. ñun ñëpp ay am ay jafe-jafe te xam nga dañuy toog gérer ko ak suñu famille quoi. Mm-hmm. loolu la. ayca naa ko bon rétablissement à Boy Niang numéro 2. Tapha dafa am loo dama dem Pàcc Lambaay supporter am day Mbacke Tapha Tine xam nga bëgg na tibb da ngaa dégg kàddu yu supporter yooyu. Mm-hmm. da ngaa ñëw rek déglu déglu sa adversaire di ko topp fu mu dugg nga dugg fa. fu mu dugg nga dugg fa ci bërëb bi. ci bërëb bi ci bërëb bi ci biir enceinte bi comme ni nga bëree rek. non xam nga combat combat dañ koy liir. Mm-hmm. man neewtuma gan ci làm mhm. xëy na ci grand yi laa bokk léegi mhm. ba tax na combat nu mu ñëwee rek luur nga wala leese la man dinaa xam nu ma koy seeree mhm. du dégg combat dem bi loolu la laajoon waruma woon am na ñu ma naan bul mos a fekki booy ñaa mais man su suma mental du woon lool ko boo ma waxee rek dama naan waaw waaw waaw te xam ne man maa war a dox dem parce que bu ma doxul dem rek fii ba suba mën nañ faa taxaw jël du am lool la quoi man maa war a dem. Mhm. te noonu lay dem yi mais itam dem bi ngay dem day am yoon da ngay sa bopp. Mhm. ba moom bu ñëwee jël si la du la fa fekk. loolu la woon ah du mhm. leneen. lu ma pare lu ma yàgg a pare la teg ko nag. lu ma yàgg a pare teg ko xëy na amaana ñi ma doon liggéeyal sax duñu ko xam. mais man lu may yeewandoo la di ko nelawandoo. ayca leneen ci bopp ñëpp ah mu bëri boo ñaa jox ko ndam instant bi tafaatin ci kan moo nekk ci kanamam. non li nekk ci sama kanam bari na man xam nga comme la may wax rek yàgg na duma taxaw kenn naan nañ ma jox kii wala kii wax dëgg yàlla loolu moom. Mm. vraiment defuma ko quoi. Mm. en tout cas Tapha mu ngi ci làmb ji sportif la comme ñëpp. Mm. képp ku ma dem ba mondu lam xam ne kii ak tafaatin Tine bi war na nekk. Mm-hmm. nañ ko taxawal rek man loolu awma ci problème. pare jox am naa am naa am naa sumay agent maay suma ménagère mbay cuun mm-hmm. waaw ak ñoom papa hélas ñoom ñooy saytu yooyu. Mm-hmm. xam mais la reste moom man damay dem. waaye yow champion bi war ngaa mën a am bëgg-bëgg jëli revanche wala da may revanche wala combat jànk ngay xaar. yëpp fi am am na ñu ma daanoon am na ñu ma daan loolu moom <laughs> garaawul. Hmm. loolu moom xamoon amul benn bu sa xel dem beneen beneen game la quoi après. <laughs> léegi champion bi sama ñetti question yi may laaj mbëri nee na moo tax sa interview passé laajoo ko tafaatin mooy ci ñetti combat ban combat moo la gën a marqué sa combat ban combat moo ma gën a marqué moo a marqué. ci ci yi ma def yëpp yëpp bon <laughs> xam nga combat moom pour nga wax ci day compliqué yëpp a neex. boo amee mm. victoire moom day neex. man defet moo la gën a metti boo moom. non amul defet moom amul bu ci bu ci bu ci bu ci bu ci neex amul. Mm. du benn. Mm-hmm. du benn amul benn défaite bu neex. Mhm. mbër bu la wax ne bii défaite neex na moom dalay nax dalay wax lu ko neex rek. Mhm. victoire moom yëpp a neex. ban ban moo ci dàqal non di nga am victoire boo xam ne bii yow. yaa yow yaa ko bëggaloon sa bopp. wallaahi asi man victoire bu ma am rek. après combat pare naa ci li ci sama kanam ba mu ma defee nii <laughs> damay dem liggéey waat leneen lu ma may ndam suma kanam. Mhm. làmb nag nekk lu métti ñi naan tey dañuy jàpp ñi naan dañuy bàyyi est-ce que am na jour bu Tapha Tine toog regretté ndax a dugg ci làmb waaw da ngay toll moment boo xam ne xam da nga naan lan moo ma dugal ci làmb sax parce que da ngay doyal quoi. Mm-hmm. waaw xam en fait xëy na ay nit ñoo xam ne comprendre ñu la. wala mm-hmm. ngay dégg yenn yi xam nga. Mm-hmm. il faut xam nga nit rek nga quoi. da ngay ami mbokk ñuy déglu métti yi xam nga. di ko muñ xam nga muy métti yow tam ngay dégg lu métti xam yooyu boo koy dégg rek <laughs> boo dëgërul bopp rek xam nga <laughs> mën mm-hmm. ngaa jékkee-jékki abandonné lam ji te lam moom xam day laaj te ngay entraîné benn mm-hmm. am moral bi ba pare dëgër bopp mm-hmm. bañ a déglu yenn yi sinon lu la déstabiliser day yomb quoi yeah ayca tey jii en tant que du ma ne sax duma damay génn ci mbër bi en tant que porteur de voix nga nekk ci làmb xam ne ci nekk làmb boo doon jox CNG lan nga leen di ñu yokk ko wala ko waaw euh, xam nga CNG moom man moom benn affaire laa xam ne nii duma ci d'accord ak ñoom quoi. exemple la fa amoon la amoon bu jékk ak li amaat nii. jékki xaar ba benn affaire am nga jël ay mesures. vite fait. loolu moom man du ci d'accord. Mhm. booy jël ay mesures da ngay bàyyi ba saison bi tëj nga jël say mesures. te loolu feeñ na ci suñu combat bi passé quoi. Mhm. du dégg ay mesures wàññi géwél yi fii wàññi mbër yi fii. Mhm. ku ne xam na ne rythme rythme ndan ci mbër bu ñuy tegal. dafa mhm. dafa am solo quoi. lay def parce que son bi dafa war a joxe. comprendre nga. mbër yi aussi doo ànd ak tey man su ma écrit li fi ne ci xel mot na soixante personnes. xam nga te bés boobu dañ ci war a gis seen bopp. tey boo classé le mbër mu ni tafaatin tey nga jox ko huit personnes wala dix. xoolal tuus mi ni muy yaraaxa ci ginnaaw. loolu loolu kiiwul quoi bokkul ci animation làmb mhm. pour man mhm. son boobu moom war nañ ko xoolaat bu baax baax mu nekk loo xam ne dañ koy teel a dindi ko mhm, franchement man moom loolu wax dëgg yàlla d'accord ma ci quoi franchement wala bu ñuy jël mesure nañ bàyyi ba lamb ji tëj ñu joo mais coûte que coûte benn affaire am na dimanche xam nga dimanche prochain ñu jël ay mesures xam nga. Mhm. loolu kiiwul quoi. Mhm. bien vrai que mun nañu jël mesure ci yeneen anam yokk sécurité bi wala boog mbër mu ne ñu ne la fii nga am droit yem. fii mhm. nga yem. comme passé man am na zone boobu mu mënuma faa egg. aw que dañ ko defi barrage. dama am sama ligne man booy ñaar li ñu gisante ci bariwul parce que fi mu nekk ak fi ma nekk dafa sore. bu ma ko seenee xam nga day mel ni lu tuuti ci man ak ak ak ay gaayam quoi ah? parce que zone bi mu ne ak sore sori quoi kon mesure yooyu ñu jël baax na. mais comme jël mesures yi wàññi tegkat yeeg ak mbër yi man loolu moom wax dëgg yàlla kiiwuma ci quoi ànduma mm-hmm. ji en même temps ak staff bi ngay àndat parce que nit bés la bés yoo xam ne dafa rëy mm-hmm. tey exemple sa famille dañuy ñëw mm-hmm. xam nga ñëpp ñëw tey nga bëgg cee dugal kenn nit loolu moo war a coow yi am ci bunt yeeg yu kenn xamul nañuy may nit ñi ñu doy ba pare wutal leen ay mesures fii ngeen war a yem bon loolu la quoi yow dégg dama rapport ci yooyu béy dégg naa bi ñu wàññi say nit da nga ne ñoo sa nit ñi buñ dugg léegi doo dugg ba am na ku ma ne sa Tapha Tine mu di jooy ma ne lu su ma gisee dinaa ko laaj ah. yooyu lan yooyu hmm? kay defuma ko nag. tontu ko rek mu leer. <laughs> dugg ci biir ci biir la ma fekk tontu ko. kon tafaatit gaaw naa jooy dugg si bun rek doo dugg ma jooy non non non loolu moom demewul woon. Hmm. yaakaar naa fi ñu bëri ñu woon foofu quoi franchement. Hmm. loolu amu fa organisation la woon rek. xam nga loolu la woon quoi mais amul leneen. beneen point bi mu ngi nii ñu gis saccage yi am bu sa mbër daanee nga yàq bu mbër bi daanoo nga yàq. CNG jël ci ndogal ne supporter bu yàqati. ci ndondu mbër bi lañ koy teg est ce que loolu d' accord nga ci war a. déet non loolu moom d' accord wax dëgg yàlla parce que xam nga mbër bu ne war ngaa mën a sensibiliser say say say say supporters wax ak ñoom. Mhm. comme ni ko tafaatin di defee man boog xam nga bu dara amee damay woo prési Ilimane ma ne ko waxal ak gars yi tegal ma lii ci seen loxo. Mhm. ñu xool nuñ ko doxalee yaakaar naa fan si club tafaatin kenn mosu leen a gis ñuy xeex fen wala boog ñu tooñ leen ñu réagir loolu moom am na. Mhm. loolu moom am na mais itam xam nga. Mhm. ñëw di yàq ay sees fii daji ay sees xam nga loolu moom wax dëgg yàlla du teraanga daal nekkul lu rafet. nekkul mhm. image bu rafet quoi mhm. agression bi fii xam nga ay image yu ñaaw yoo xam ne nii xam jaru ko quoi. Tapha Tine dugg biir Pikine contre Ama Baldé duggaat biir pikin dox ci nga xam te ne nii mooy. Euh, euh, Boy Niang nga ne ko combat bi maa ngi yow bu ñu taxawee su ma nee puusal. da ngay puus loolu nga indi keroog walla waaw sa gars yi la ma fa jëlee ñu gi puus na de man man mu leen ma dugal tafaati na ko waxuma ko. non xam nga mooy comme li may wax rek man en général moom feesu fees wala combat bu ma ci paree moom. Hmm. damay xooliwaat beneen game quoi. Hmm. <laughs> dëgg la comme ni nga koy waxee su mooy adversaire li ëpp Pikine lañ nekk ak euh, ak géejuwaay. Hmm. boo xoolee su mooy combat yi ëpp yëpp foofu la quoi entre Pikine géejuwaay en même temps xëy na Bombardier moo ci nekk mbuur affaire yooyu. mais ñi des yëpp zone boobu la quoi. Mhm. parce que adversaire potentiel yi foofu lañ nekk aussi. Mhm. looloo moo waral loolu du question dama taamu waa Pikine wala fii di bëreeg ñoom adversaire yaa fa nekk rek loolu la. Mhm. du du du leneen. ayca muy bëreeg Bombardier nag indi dama ci taq rib loolu ma taq ci rib muy bëreeg ki nga xam ne mooy Boña ne taq ci rib alias Sakandé. Tafaatine jot na de dañoo demoon gis nga ne ma bu làmb ji jeexee daaw toj toj ko luy waaw xam nga Tafaatine moom chaque chaque chaque combat moom day day day indi game bu bees. game bi lii la laajoon ñëw nañu xam nga <laughs> yàlla dimbali nañu xam nga yuus nañu ko nit ñi ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy consommer sant yàlla comme takk ci ni mu fi ne woon à xam nga euh, ma waxoon ko deux heures du matin Diourbel may nuyu waa Diourbel waa Bawol ñëpp xam nga euh, ma ne tax cirib ñëpp di ko consommer xam bii itam mooy loolu ay saakande alias tax cirib xam nga ma ñëw ne xam nga gars yi nañ ma leen jox ma nappaaje leen. Hmm? waaw wan bàyyi wan. looloo yaa dégg loolu Mansour nañ ma leen jox. nañ ma leen jox ma nappaaje leen yaakaar naa waaw gis nga nappaaje bi moom mënul ñàkk moom sometimes ñu jàpp kenn xam nga <laughs> nappaaje ko dem seeti leneen du mën a ñàkk. ma man maa ngi lijjanti saakaande bi mu ne dafa ci tegal nappaate bi xam nga tax ci dem ñëpp mën nañu saakaande bi moom benn game la boo xam ne. Oh, mais diggee boor la fa muy taxaw yaak moom sutante wu ngeen mais xam nga nekk na loo xam ne golo du ko yéeg. Hmm? foofu laa ci yem ak yow. Tafa Tafa tojoon ñu yax bi diggee boor la nii mais golo du ko yéeg amul fu ko golo jaar. mu gàtt golo mënu ko yéeg. non amul fu mu ko jaar. merci. ne ndax garab non afta. ah afta moom mënu fa am dafa dañoo ànd nga ne ma laa ma jeexee laa ma jeex na saa bi ñëpp loolu la ñuy xaar. waaw mais ñamal naa la ci saakaande. tojal ma ni golo du ko yéeg. exemple yow boo taxoon sutante wu ngeen ko te golo mënu koo yéeg. non mu ko jaar. xam nga xam nga xam nga fees su fees ba dama waxoon ne ñun xam nga dañuy for ay doom yoo xam ne nii lu mu lëndëm lëndëm dañuy làmb daj. Mhm. moom mu ne ay ñor tab yi affaire yooyu ma ne ko bu ñoree bu tabee ñun dañuy for dem suñu yoon. Mhm. te coow du jib. Mhm. parce que bawol lañ dëkk nag. yow keroog ban fond la indil. ban na. ban fonde la la indi moom nee na kaas fonde la la indi. boo mu xorom ban la la indi yow bàyyi bàyyil sa waay fonde ba moom. non non pare ban fonde la la indi jour boobu parce que bëgg nañ xam booy ñaar jour ban fonde la indi te yaa ñu ko mën a wax ban fonde la indi. non fonde bi fonde bi moom ñëwul bi pas quoi wax dëgg yàlla xam naa dañ ko fàtte kër ga quoi mais loolu la yàlla dogal <laughs> suñu frère la suñu boy la aussi ñu ngi koy encouragé wax dëgg yàlla jantal boy la. Mhm, xam nga mhm. guerrier la aussi. Mhm. lam ji ñëw na métti na xam nga mu ñëw xaar ko fa gérer ko. waaw ma koy encouragé bu baax di ko ñaanal te xam ne xam nga làmb moom noonu la quoi moom xam na sax dangay ngay daan wala nga daanu daan na fi ay nit mu neex tey bu ñàkkee na ko sant yàlla quoi te xam ne loolu la yàlla dogal ci moom du besam bu ëllëgee besam day ñëw te mën naa neex incha allah ma koy ñaanal moo ki mbokkam yëpp te di wax ne xam nga maag moom dañu xaw a bokk ay xarit quoi ci ci ci bawal ci encadrement ñoom xam nañu ma xam waaw kon kon loolu la ko quoi may ziar waa tuubaa yëpp di ziar waa Daaru Rahman bi yëpp xam nga ñoom xam nañu xamoon loolu la yàlla dogal. làmb ji mu jeexee neex na la. mooy li ma wax rek euh, victoire la quoi victoire mhm. moom victoire la rek. Mhm. bu ma sañoon dama koy daan bu toog ci kawam. Mhm. mais comme deme na nii victoire la sant yàlla quoi. neex na ma neex na ma. daam kilifa bu ma waxoon ci làmb ji du ma tudd turam. ma ne ko ndax làmb ji ni mu jeexee réglementé wu na mu na ma Tapha Tine il a été intelligent dafa joué ak règlement bu CNG. est-ce que yow da nga jàppoon ne comme am na quatre da nga war a génnee saako yi. non stratégie la wala. non man man man su ma su may combat man dama leen koy wax tout le temps man li may bëre man nebuma ko kenn. ku mu neex nga neb ma sa bëre. mais man bu at bi soufflé damay ñëw. aw ma temps di xaar. parce que combat bi ñu bëri del ma noonu bul dem fekki booy ñaa mais man ñoom lañ gis ak man li ma gis du benn. pour man maa war a dem. te la ma doon wax bu ma la nee puusal da nga war a puus. loolu moo nekk puus na waaw jàll na lam ji jàll na lam <laughs> ji jàll na quoi. man ay ma mënumaa jëw euh, Mansour Tapha Tine nee na puus na làmb jaan na boo ñaa indil fonde bi loolu moom su ma yeggee ci boo ñaa dinañ ko la comme arbitre yi mënuñu mënuñu la nga may nettali ci làmb ne ma xew kon dëkk bee toog mooy li may wax rek xam nga ñun ñëpp ay ay góor yàlla lañu quoi mm. mais am na moom xam nga du ma du ma ci dugg mais arbitre moom xam nañu mm. xam nañu quoi xam nañu mbër yi doon gërëyeel dëgg dëgg ñoom xam nañu ko mm-hmm. parce que ñoom ñooy des ñun ci géew bi xam nga bu arbitre ku ne ne pare nga mu ne pare nga donc foofu beneen affaire la quoi foofu il faut nga nekk gentleman dëgg mën koo gérer bawol gi yëpp nekk ci ginnaawam ñu gis ki nga xam te ni mooy mbay guy gi combat bi yaakaar naa boo ko demoon mbay guy gi simmeeku nga bëreeg boo ñaa sax mu simmeeku bëreeg boo ñaa lan ngay wax mbay guy gi moom wax dëgg yàlla suma suma suma rak la quoi combat bi ko bëree pare wandoo mm. fa jar bëccëg ak lépp. Mm-hmm. tout le temps muy ñëw di di di contact si quoi suma suma frère la suma mm-hmm. rakk la wax dëgg yàlla. Mm-hmm. vraiment. dëgg yàlla. mooy li ma lay waxee yaa ngi may dugal ci ay affaire te li mag yu kenn xamul te xamul booy yëpp su may rakk leen. wallahi asim. wallahi asim xam nga tey exemple ba ci mbir yi nga xam ne tey ñu ngi woon euh, Bawol. yàlla daf ñu dem tukki. muy booy Bawol ak wuli. ak ndoof. wóor na Serigne Touba ñoom ñëpp dañoo yëkkati seen ñàq yónnee ko ci combat bi. mu mu lay xamal ne solidarité bi ba léegi mu ngi fi quoi. Mhm. bien vrai que ñoom ñu ngi Europe ñu ngi États-Unis mais. Mhm. ñu ngi participer ci combat bi bu baax. Mhm. muy Bawol di Wuli 2. ak Ndoof xam ngeen neen ay champion lañ. def nañu fi ay grand combat yu bëree bëree bëree bëri. ba pare ñu yëkkati seen alal jox ma ko quoi loolu tam xam nga. doon benn affaire bu rëy a rëy a ci man quoi. wax dëgg yàlla combat bi ñaar nga dépensé ci mes non loolu mënoo koo xam. loolu mais mën nga koo xayma ne dina doro ay téye 500000 ay 100000 yooyu noonu. 100000 non da xayma rek man waxuma yow yaay wax da xayma rek. xayma rek. dafa xayma rek ci ñaar lay toll. xanaa ba combat bi taxaw léegi chaque heure ngay wax chaque heure nga nga nga ñàkk hmm? bi taxaw ak léegi chaque heure xanaa. dinañ ci fin bi ci jour ji ñu gis ko Tapha Tine génn gisuñu ko ba 17h mu waaj jot. ma laajte ci wéyu bay yi ñee ma Tapha dafa génn Dakar mu ngi ñëw da ngaa génnoon Dakar jour lamb ji. suuru jour lamb ji. non fi ma jóge moo sori rek. jóge wu ma ville quoi jóge loolu moo tax. dina ko mystiquement dafa dem taxi ngémbam ailleurs fan la. non doo jox code bi gars yi. non man xam nga xam bu ne ak mu laaj quoi. Mhm. loolu la quoi nekkul leneen. waaw mhm. nekkul waxtaan bi li ñu naan lu duuf ci nag bi yëpp xajul bi dañuy dem dañuy dem bawal de dañuy dem bawal dem reefan ma Mansour ah. topp ki nga xam mooy Tapha Tine xool naka lay naka la naka lay naka lay féetee victoire fecca Bawol ñun ñëpp ilaa Bawol lañ jëm yaa ma gën a xam euh, Tapha Tine nan ngay tàggatooyee. waaw di sant yàlla di sant aussi xale yi nekk fii yëpp. Mm-hmm. waaw te xam nga di sant aussi bébé ah. parce que bébé yi dama leen a bégal ci combat bi te xamuñu ko mooy ceq ba ak biberon bi. waaw. <laughs> bébé yi laa ko doon may spécial lii laa doon xaar bu ñëw ma wax ko quoi mooy caq bi ak biberon bi. moom ma caq bi mooy saakaande sax. maa ngi ko may xale yëpp. Hmm. waaw si yàq a xam am na saakaande. noppi naa ko ah. biberon ko bégal bébé yëpp. Hmm. a juddu ak bébé hmm, ay 6 mois 7 mois. maa leen ko waaw di leen gërëm di leen sant rek gis nga tey ñëpp fi teew mun naa ne Bawol Kajoor Siin Saalum mbokk séeréer yi ñoom ñëpp a ñëw teew fii tey mm-hmm, mm-hmm. xam nga yàgg nañ ci école bi toog di ma xaar mm-hmm. xam nga gis yu ndaw yi ñoom ñëpp a ngi xam nga di sant ñëpp di waaw li may naa la yow limal limal ba na sant yàlla waaw di gërëm aussi ñu ñëw ci sant bekk gërëm parce que itam xam dañuy nekk ci bés yoo xam ne nii. nga bi ñëppay ñëw taxaw. Mhm. muy autorité yi. Mhm. waaw di sant maire Bamba Fall aussi ak Mor Ngom bu ndàngal ma. Mhm. Pape Thiam. Diourbel. impôt demen xam ñoom maire bu Réfane Djibi Thiaw. ñoom Bada. xam nga Fallou Faye. xam nga Daouda Tine. maître Pape Sène. comme maire yi Bawol yooyu yëpp ñoom ñëpp a jàpp si làmb ji. Mhm. ñoom jéey euh, ni ñu koy waxee te jéey bu tuubaatul. Mhm. amet jéey waaw ñoom ñëpp jàpp ci làmb ji. Mhm. xam nga hmm, di gërëm aussi Daouda Daouda Faye sama gaañ nga xam ne tey rek ci moom laa jógee. nga xam ne convent bi lu mu bëri bëri bëri kat kat yi lu mu neex neex mu ñëw taxaw joxe ñuy oto moom Daouda Faye. nekk fii ci VDN bi. Mm-hmm. suma xarit suma gaayan taxaw ci combat bi bu baax a baax di sant waa Serena Fitness bi nga xam ne fa laay entraîner pendant trois ans yoo xam ne dañ ma bàyyi may entraîner rek amul fay heure bu ma neex lañ may ubbil saal bi ma ñëw dóor li may dóor dem suma yoon mm-hmm. di sant et puis madame Kébé xam nga Mouhamed Kors ñoom Titi Seren ñoom Titi Baba ñoom Malick ñëpp mm-hmm. maa ngi leen di gërëm di sant Thioune Elas Papa ñoom ñëpp di sant aussi waa Ouest Foire bi yëpp waaw di sant aussi sama manager Mbaye Thioune di santati aussi suma lutteurs yi mhm. di sant ñoom Bada Dione xam nga Daouda Daouda ñoom Daouda Sarr waa marché Sandaga Mbaye Gambie ñoom woon du faale ñëpp mhm. waaw maa di jaar xam waa promoteur yi Bawol mhm. ñoom ñëpp a mobilisé wu ciy seen <coughs> Fallou Ndiaye Assane ñoom Daouda ñoom Yedali xam nga mm, bari nañu daal ñoom kanji yi ñëpp ah. xam nga maa ngi leen di gërëm di leen sant gis naa taxawaay bi ak yenn a beeg yëpp bi ñu def ci ci tafaatin di sant aussi DG Leewtoo Pape Thialis vraiment moom tam xam taxaw na ci bees bi ba bés bi yàlla xam nga mu jàll ci jàmm ñoom Gaston Mbengue ni ko laay xam nga bàyyiwuñu kenn Assis Ndiaye waaw borom sa door bi waaw nga xam ne xam nga ñëw na taaral bés bi ak sponsor bi xam nga ñu ngi koy gërëm di ko sant ak frère bi ñoom bàyyi ñëpp. waaw mu ngi noonu kon kon mu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu sama mbokki séeréer yëpp di wax ne xam nga kontaan naa xalpulaar yi manjaago xam nga mandinke soose joola ak lébu yeeg xam nga suñu mbokki chrétien yeeg ñëpp maa ngi sant ñëpp di wax ne xam nga kontaan naa ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp bëgg naa di sant aussi suma toma tafatin bu kenn jaayloo ñoom nguuda Rufisque sama gaa yooyu nga xam ne xamoo chaque euh, combat Tapha Tine mobilisation bi day ñëw kon euh, maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne bégg naa kontaan ñoom Talla Ndour Latir ñoom Iba Seck ñoom ñëpp sama Baye Fall yooyu aussi maa leen di siyaar di kontaan daal lim bi daal xaw na compliqué te metti quoi franchement wax dëgg yàlla mais ñu ngi defaat yeneen émission dinañu xoolaat mayen du bu baax ku ñu fàtt rek après incha allah rabi prochaine émission après ñu xool ñu ko géré quoi incha xam ne bool bool bu mag la foog ngi dem Révan ah. xool naka la ñuy féetee victoire bi waaye ci noonu laay def rek mañ pour ah jënd caméraman yi kenn du yow. waaw waaw yi may wax beneen nouvelle fii léegi. Mhm. dëgg yàlla maa koy doog a yëg. Mhm. bool bi ma doon wax ñu ne yaayam moo gën àdduna. Mhm. suñu yaay jooju. maa ngi ko koy jaal di ko jaal ñëpp. Mhm. di ko jaal mondu lam mhm. te booy bawol moom xam nga lu dal ci kawam rek suñu kaw la dal. Mhm. ak suma kot su Ibra Diagne bi nga xam ne mu ngi taxaw à côté papaam génn àdduna bu yàggul semaine passée aussi ñu ngi ko koy leen la woon quoi yàlla leen yàlla yërëm te xaaral leen aljana man pro sama jinne cameraman yi kenn du yow loo filmé lu baaxul te loo filmé lu man bugguma waaye Modou Mané 100 pour cent assurance yow roo dawul duma fa dem sam papa Cheikh Mbaye Kébé dama lay bëggee bu baax a baax di la ñaanal jàmm ju bëree bëri desata ko naat tafaati dégg na sa yóbbante bi dina léegi nii ñaanal nga ko dégg na la hmm? mu ngi lay remercier bu baax a baax waaye internet yi national international Aline Ngone na lool sañ se naa tafaatin daana soxla sedd naa Aïcha noonu la def ba beneen champion ci waxtaanu làmb ci Leewtoo TV Aïcha jaajëf